auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf sëriñ Touba euh, sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu ci turu fédération Matlabul Fawzeyni set setal bu sëriñ Saliou di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mountakha di ñaan mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di jël nuyoo mbooloo mépp di ko teg sa loxo di ñaan Mbàkke nga yàgg fi lool ci ànd ak wér Euh, fédération bi tey ñëpp daje nañu ci yéene ak pas-pas ak defaru goo xam ni nii ñoo ngi koy bëgg ci bis bii lépp nag loo xam ne ñoo ngi ko doon séntu ci bis bii bi ñu waxtaanee ci bâche bi bi ñu waxtaanee kenn ku nekk ñu laaj la lu ngeen jàpp ne bu ñu demee ci sëñ bi moom lañ fa war a yóbbu ci ñaan ñëpp ne daal lu ñu sëñ bi bëgg a defal nañu ko ñaanal moom ci boppam mu yàgg fi ci ànd ak wér kon nag sunu pas-pas tey jii mooy nga yàgg fi rek ci ànd ak wér. lépp lu ñu liggéey ci bis sëñ Abdou Khadir bi ñoo ngi koy ñaan ci daraje Cheikh Abdou Khadir nga yàgg fi lool ba ànd ak def li nga bëgg a liggéeyal Serigne Touba ak sa waajur yu baaxee ba na ko bëggee nga defee ko noonu loolu rek Mbàkke mooy tànk yi leneen li nga xam ne nii mooy wàllu daayira bi fédération bi daanaka ñii ñi nga xam ne nii ñoom nañ bàyyi fële daanaka xaw nañoo toll nii ña nga ca euh, tool ya nekk fa di euh, lijjanti euh, daara ja ñii ci des ci bari dellu nañu waaye tey jii laa xam ne Touba yéene gi ñu am ci yow musuma gis pas-pas bu mel nii ndax fu nee la daayira jógee sunu baas bi li muy gudd gudd dafa mujj fees ba mbedd yëpp dañ koo toog loolu nag yow rek yaa leen ko jaral sab woote dong nañ mën a gis mbooloo mu dajaloo nii feese nii kon nag loolu mbakke ci yow la ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi ci ànd ak wér ndax duñu la téye temps bu bari li nga war a def lépp yaa ngi koy def Mbàkke kon nag lu des mooy ñu ñaanal la nga yàgg ci ànd ak wér sëriñ bi naan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen waa daayira Matlabul Fawzayni. yéen waa daaru yéen waa ma daayiratu Matlabul Fawzayni. ci njiitul bàcc di ba. ci njiitul sëriñ bàcc di ba. maa ngi leen di nuyu bu baax. mi ngi leen di nuyu bu baax. di leen sant. di leen sant. di leen gërëm. te di leen gërëm. ci seen taxawaay. ci seenu taxawaay. ak ci pësteef bi ngeen ànd ak man. ak ci pësteef bi ngeen ànd man. ndax mi ngi bëgg a yàgg. ndax mi ngi bëgg a yàgg ndax yàlla def na moom mii ndax yàlla def na moom mii di Sëñ Bàcci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo ma boole woon moom moo ma boole woon ak moom boo nekkagul Sëñ Touba booba nekkagul Serigne Touba bi mu doonee Sëñ Fallu ba am ñaari at bi mu doonee Serigne Fallu ba am ñaari at 2003 wala 2004 2003 wala 2004 ci la ma boole ak moom ci la ma boole ak moom boobu ba nëgëni nag boobee ba nëgëni nag wax dëgg pësteef rek laa xam ci wax dëgg yàlla pësteef rek laa xam ci moom ndax euh, pësteef moom ndax pësteef moom. bu bu saxee ci nit rek. bu saxee ci nit rek. da nga xam ne dëgg la moom. da nga xam ne dëgg la ci moom. te moom maamam. te moom maamam. bokk fekke woon na Serigne Touba xumaak. fekke woon na Serigne Touba xumaak. kon ci cosaanul yoon wi la. kon ci cosaanul yoon wi la. kon ñu ngi koy sant bu baax. kon ñu ngi koy sant bu baax. ndax ndigal luñ ko jox rek. ndax ndigal luñ ko jox rek. dana ca taxaw. dana ca taxaw. ba defe ko nu kawe suñ ba defe ca nu kawe suñ jot. kon ñu ngi koy sant di ko gërëm. kon ñu ngi koy sant di ko gërëm. di gërëm mboolem mu àndal. di gërëm mboolem mu àndal. di ñaan ci daraje bis bi. di ñaan ci daraje bis bi. ci barkeb Sëñ Touba. ci barkeb Sëñ Touba. suñu borom faj seen aajo. suñu borom faj seen aajo. defal leen seen bëgg ñoom ñëpp. defal leen seen bëgg yéen ñëpp. ba liñ doon yaakaar lépp. ba liñ doon yaakaar lépp. ñu daje ceeg tawfeex. te ñu daje ceeg tawfeex. ñu daje ceeg tawfeex. ñu daje ceeg tawfeex. ak ngërëmul Sëñ Touba. ak ngërëmul Sëñ Touba. wasalaamaaleykum